naan patriote patriote français la mais léegi sénégalais yëpp nand nañ ko parce que télévision yi lañ ko déggee ak rajo yi koo wax mu fëgg dënam ne man patriote la yenn yi ku koy def si dëkkadoo patriote doo tous na leer waaye boobu sax mu nekk sama grand frère nañ ko wax ne doo tous ay millions de personnes nekk ci Sénégal nga bëgg di def loo xamante day taalam réew yàlla am lu ko gën wan na ay exemple yu Côte d'Ivoire kenn ku film nit di dee doomam di ko romba du ko tal waaw ah, loolu jàmm la nañu suñu xel si mag ñi gën lu si bëgg xeexaat sa moroom xoolal ne sama doomu ndey la waaye da ngay gis benn équipe ñaari équipe di ay nit yu bari parce que ku ne ay war nga comprendre ne ñaar la commencé mais ay nit yu bari di xeexoo di riiti riiti te ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais c'est honteux d'accord booy nag yéen lay gën a wax xale yi. xare yi parce que man si xale yi laa boole sama bopp samay gaañ ngeen mais habitude bii ngeen di dugal si réew mi amu fi woon rajo amul woon dara amul woon pexe amul woon te lu xewoon caaro yi waa Wakaam xam ko waa waa waa waa Tuubaa xam ko mais léegi nii fi mu nekk nii léegi la gën a gaaw saa yooyu yowoo ñu ne diw dee na rey nañ ko kii dañ ko jam kii dañ ko dóor birig lii dañ ko lii jël nañ xaalisam muy di parce que ñu gaañ ko agressé nañ ko def nañ ko dul yoon est-ce que jaadu na si menam réew xam ne ñun ñëpp xam nga sama nijaay boo xamul sama nijaay xam nga sama bàjjen kon nan la ñuy defantee lu ñaaw ñun nag ñaaw boobu moom la bëggoon pour que kenn ku si nekk xam ne du aaday réew mi

nañu régler suñu bopp parce que li ñu bëgg a doxal si réew mi des na tuuti kenn du jullitee ci fajar si jàkka yi ngeen pertaloo leen seen tuyaaba ju leen yàlla noonu jox bu ñu toogee seeni kër yàlla mën ne leen jox tuyaaba jooju ba pare xaar leen ba nga xamante ne nelaw jot na mu mu mu jox yóbbu yóbbu wan leen ne safaraang fii maa ko te loolu kenn yéenew ko kenn gis ngeen senegal ku dee ñu ne ndeysaan ku baax la woon fekk ku bon la buñ ko fi ñu ma ñëw wax nag parce que ay bokkam dañuy jokk ne kii waa jaraf lu muy wax ni fekkal lii ma wax loolu muy dëgg kii gën a bon mbokko bu deewee nit ñi dana ndeysaan ndeysaan après ñu indi ne ku baax la woon fu mu baaxee kii daan agressé nit ñi rek fu mu baaxee kii daan tafu nit ñi seeni poche xamul ndax sàcc na alali koo xamante ne loola mu yoroon mu ngi ko yéene pour yóbbu ko dimbali si keneen kooku baax na maa nanu waxante dëgg nanu waxante dëgg te defante dëgg nu Sénégal nañ bàyyi ñaaw yi ak gàllaaj yu ñaaw yi ñuy si dëkk bi waxoon naa ko fi bés si mbër yi mbër musu caaxaan bàyyi dugg si affaire yi fétiche ak dugg si yenn yi soo tamee ba tëb ay jeex nga war a dee sa sukuraat day metti man maa ko wax man Guéra da gis ni ku nekk ci sukuraat tëdd feebar mais bu nokkee rek mu mel ni ab concasseur lañ taal à côté nga dégg mu mel ni kuy xoronda lu tax duñ ko du ngeen ko seetlu lii ma wax lu wér laa la wax laay wax dama ne kuy def utiliser gàllaaj bu bon yooyu di ko def si ay nit sooy dee sax yàlla si boppam foofu lay commencé nag ay kuuram di la dóor tàppa comme piis bu ñuy ak cuub cuub yi rek waaw parce que yàlla loolu nga mérité bëggul woon nit ñi am jàmm si àdduna yaa ngi bëgg nit ki torox te moomu loo ko juruloo ko jënduloo ko booy man foofu rek laa àndul ak yéen si agression bëgg jàmma am ngeen ko yéene ngeen pour seen yaay ak seen baay ngeen sigil leen yéene ngeen pour senegal gépp am jàmm ma bëggoon fi ñu taxaw di fi xaar ñu taxaw di fi xaar xam nga muy lan man bu ma bu ma tolloon ni ay booy yi nii sama xam nga lu muy doon nañ exploité pétrole bi waaye ñu dóor ko ñun ñëpp ñu nekk si donkaa sigi parce que fii ngeen toog ñu senegal ñu wax ne non nañ dem man daal dama bëgg dem France waaw koo minul mas loo fay dem loo koy nammee amul mais nag da ngeen bëgg a tekki pour mën a ne dem dox ci affaire yàlla mën na ko yàlla wan nañu xéewal ci ci pétrole bi fi nekk nii xéewal ci gaz bi fi nekk nii d'accord nañu ne ñoom ñii koy wax ak def ñoo xam nu mu demee mais dama ne bëgguma wax wax boo xamante ni dañ naa neex na le ex bu ku ñu jox dëkk bi exploiteel affaire bi président Macky Sall te administration nañu gaaw si job bi ñuy job pour que ñu mën a songo ñun suñu pétrole pour pétrole bi commencé dugg pour xale yi nekk si jàmm doo ma la wax luy luy luy luy fële na ko sax dëkki naar boobu ah fii si euh, Dubaï pétrole mën na feeñ si benn bu rek man de boo ma demee immeuble laa gis ay affaire yu garaaw gis naa sax benn espèce su ngan cadre cadre bi yëpp or la ñu def ko si digg dëkk bi foo toll du ko seen mais loolu bëgg na ko Sénégal mais or ñu ko mën a may or ñu mën a may pour que jeunes yi liggéey ma ne nii jeunes yi toll ak fi mu toll ku ñu wax ni ñu mën nañ nii c'est pas vrai jaraaf yi mënul jox waa Wakam yëpp ndékki amul tous mais am na yaakaaram yaakaar jañu am nag yàlla bu yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar mais nun suñu yéene mooy xale yi nekk si réew mi nekk seen donkaat sigi administration na gaawal liggéeyam ñun li mag ci doon wax li mag ci doon wax américain bi ab ngam jarul lii tey jii donkaat di jarul li mooy fa lañ toll xale yi kenn war leen utiliser si dara ba pétrole bi ñëw ngeen jël seen wërsëg ci pétrole bi petrole bi tu pour ay garab yu su doy ak ñi ah pour yéen ñii la pour ngeen xaw man ngeen koy wax ba ngeen tekki quoi daal di normal tey nga finaan fii suba nga dem jidda ne da ngay sànni sa ñaar rakk da ngay def nii da ngay def ne la ñun man boog noonu laa gisee àdduna état bi na gaawal job bi job bi pour que exploitation bi gaaw su ko defee goos yi am gis lu ñu yaakaar man dey boo ma amee lu ma gënal su ma waa réew suñu Sénégal xale yi nekk si donkaasi bi parce que ñun ñi yooni jàmm nun ñoom tax la bëgg pour que rek ñu taxaw si place bi ñu war a taxaw loolu fi daal mooy mooy sunu problème amunu problème mu ay nii mais problème mu jàmm kese lañu am lii am nag mooy que ne xale Sénégal yàlla nañu muurloo pétrole bi ak gaz bi bu ëgsee kenn ku si nekk si yéen yàlla na nga am loo bëgg lax ay milliards boo waxee nit léegi léegi ku la fay ko bor léegi nga fay ka léegi loolu mooy affaire bi yàlla na yàlla defar lépp. ginnaaw loolu nag di leen sant yéen journaliste yi tey ñaan yi leen ñaanal lu mu rëy rëy rëy yàlla si boppam moo ko mën def yàlla na yàlla régler yàlla mi dara am nañ yéene waaye moom mooy dogal comme mooy dogal nag yàlla na leen yàlla fay fay gu wér benn góor dafa waxoon ne ma Youssou ma ne ko waaw mu ne ma yàlla ko mu bëggul a fay du la liggéeyloo yàlla ku mu bëggul fay du la liggéeyloo ma ne ko ah mu waaw bu defee buy fay dangay taxaw rek mais mu fay ñu mu liggéeyloo woon yàlla boole si ñëw liggéeyloo nag ba bu ëllëgee ñu nekk suñu donkaas si gi parce que toog fii man boog si li ma gis moo gën ñu nit ne. dem na kenn dutu ko gis nag ñëpp nañu yenente jàmm nañu yenente jàmm nañu taxawal sarax yi ñu war a def lii ma génn nii tey si wax c'est parce que foofu lañu toll dafa am mook fan di ñëw dañuy runga ñun ñëpp uti gi benn bool pour ñu éviter nag deneen di si am nii la mag ñi daan nañ toog sax ñu ne tey nañu sarxe ñaari juróom-ñaar mais tey boo demoon tey nañ def ñaari juróom-ñaar ñaari juróom-ñaar mag ñi dañ ko daan def si bu épidémie amee walla ñuy xalaat ne di ngi ñëw maaman yi gis ko si nii wala borom koogi soow yi gis ko mu ñu wax ak nit ñi ñaari ñaari juróom-ñaar mooy deux fois sept du 14 14 biscuit sa doom tudd nga nga sere xel 14 biscuit loolu am na problème ñaan yàlla ne sama doom yàlla na am nii yàlla na mel def nii lu baax la loolu mag ñi daan nañ ko fi def si réew mi fekk ngeen fii mel ni euh, Serigne Abdou wax def ñun baat baatam waaye gëm nañ ni ku taal télé dégg wala ku taalab rajo dégg wala ku dem ci net bi gis ñu ne nañu saraxe euh, euh, benn soow ak euh, ndox yàlla defal nu sutura bi sarax bi oyofe mënuñu ko def pour Sénégal gépp mais am nañ pour wax ak yéen pour que ngeen xam ne yàlla moo dogal lii ñu war leen mbax mu faras bëgg bëggu Sénégal bu nekkee benn rek parce que am na génn a góor ñu koy wax jaraaf Jibril Gueye dégg naa ko moom si géej ko am ñu toog bés mu ne ma yàlla dinaa la wax tey Youssou benn wax ma nekk lan mu ne ma allahuma wakaam xajul si kenn bu ñuy àndati ñaan te ñu ñaan loo ñu yëpp yàlla may ñu bon Sénégal nañu comprendre ne garaaf yu sundooy moo wax nii rek mais la sa ginnaaw bu kenn liggéenti ñun li ñuy liggéenti mooy mbuusu soow ak mbuusam ndox saraxe ko su ko defee yàlla si boppam mën nañu defal lu ëpp suñ jot si lu baax yàlla na ko yàlla def Sénégal gërëm nañ leen sant nañ leen di ñaan yàlla yokk seen jàmm noonu si ñaan rek la dëkk ñàkkul ñuy wax sax ne Gara Bijou Ndoye day dafa mën a histoire mais histoire bi loolu mën naa ko tudd sax ndono waaw mais lii nga xamante ne moo nekk ci role bii ma nekk ak lañ ma sante mooy jàmm te loolu lay mas di doxal keneen ku xam ne neen def ko loolu man loolu doucement waaye man li ma bëgg rek mooy xale yii si lii ma gën a itteel si àdduna ci la bokk su ma paree si àdduna nag dem dem na mais si fii ma toog xale yi kese ñoo ma intéressé man maa leen ko wax aw ma dara lu ma siy rëccu nag léeg-léeg sax ma wax wax boobu ma gam si su may xarit yi kenn wi non jaraaf mais yow booy man deet mais xale yi ñooy avenir réew mi ëllëg am na ku ma juddandoo loon ge gaañu na keroog bii bi mu juddoo ci bés bi diggante booba ak tey tamit am nañu fiy dee te bokkuma si ñu xool si kanam tuuti léegi da nga gis ay nit a nga jóge hôpital di yuux ngoon su fekkente ne dañu gis xale yi sunu kanam gis ne ñu ngiy bëgg pour tekki mais ñu lii jaadu mooy ñu ñaane leen ñu tekki mais ñu xalaat ne yàlla si boppam moonu moom heure ñun ay mag lañ heure bu ñu demee baax na mais nag xale yi nekk si si gi man delloo loolu lay liggéey yàlla na leen yàlla aar